du am problème kon kenn du nekk ci biir koñam di fa taal xam nga affaire bi dafa am effet d'entraînement hmm. bu ñëpp demoon foofu manifestation autorisée lay doon des pacifique léegi nag moom moo war a choisir entre image bi muy bañ Sénégal wane ni euh, population bi ànduñoo ak moom mu nekk une grande masse boo xam ni day def le tour de la presse internationale hmm. nga choisir entre image boobu avec des scènes de chaos bi wane ni yow da nga installer Sénégal dans le chaos parce que cette fois-ci mënuñu wax ni Ousmane Sonko moo taal dëkk bi wala Pastef wala opposition. Mhm. loolu moom non maanaam yi ko doon wax sax. Mhm. ñi ñi ñuy tuddee les neutres mhm. bi dañuy yee fitna dañuy mu nekk nii Sonko nitu fitna la Sonko mu ngi ci kaso bi. deful sax far waxul sax deful sax ñoom waxuñu defuñu communiqué. Hmm. société civile moo jóg jël responsabilité ñoom nee nañu ku jël responsabilité ko dañ dañ ko appuyer mais léegi la Macky moo taal dëkk bi. c'est son décret là qui a créé tout ce problème là mais kenn mënu ko jiiñ opposition bi donc moom istu li muy def ay amnistie ak yooyu yëpp mais daf ci war a bokk mu respecter les libertés publiques les libertés euh, collectives et individuelles maanaam le droit de rassemblement c'est, garanti par la constitution léegi nag moom bu fekkee ni dañuy tere parce que man bi ñëw maa ngi gis ñu ngi déployer gendarmerie un peu partout ci ay points mm-hmm. stratégiques xam nga waaw man xam nga gan nga man gan gan laa fi gan laa fi man dama ah. jóge dama jóge fu sore <laughs> xam nga uh-huh. donc euh, euh, tu tu une scène d'exception donc loolu euh, image bu bon bu muy joxe la bitim réew uh-huh. donc moom il n'a pas le choix euh, li muy jublu ci nii mooy décrisper l'atmosphère déjà parce que moom li ko gënal mooy ñu reculer élection yi mu defaruwaat uh-huh. parce que ils savent qu'ils ont déjà perdu les les, les élections léegi ñi nga xam ne yéene wuñ leen euh, nguur gi muy Bassirou Diomaye Faye dafa fausser ah. tout leur plan mmh. parce que gis nga am na benn colonel sax bu ñu sanctionné boo xam ne nekkate dañu joxe instruction pour mandataire u Bassirou Diomaye bañ a accéder conseil constitutionnel comme ni ñu euh, fàttalee bunt euh, mandataire u Ousmane Sonko yi DG e, e ak CDC mmh. parce que loolu moo gën a yomb tere ko mu déposer que statuer ci pièce yi muy déposer parce que ñu def autrement que accepter ko. loolu dafay confirmer incertitude bi nga doon wax ne moom la ñu am ci conseil constitutionnel maîtriser tuñu woon les sages. non maîtriser ñu woon les sages mais y aussi euh, le droit parce que ouais. les sages même bu fekkee ni dañu bëgg a éliminer un. un candidat teg ko ci yoon il faut ñu am motivation. il faut ñu am motivation ak soubassement bu leer boo xam ne. ci mm. lañ koy teg mais koo xam ne lépp mët na fan ngay teg. ni élection recevable. de ci communication ba léegi communication président am na loo xam ne am na loo xam ne ñu bari peut-être te bàyyiwuñ ci bopp mais ni président waxee c'était comme si que tamit ci dialogue bi mu woote dafa am loo xamante ne fa la fa la bëgg a jaar pour seppiwaat ñoo xamante ne nan nan nañ nekk candidat déjà gis nañ euh, projet de loi bi nga xam ne voté nañ ko assemblée nationale am ay modification yoo xamante ne nam nañ koo amal euh, ci euh, ci ci parrainage bi donc loolu déjà su nekkee parrainage citoyen bi ñuy laam dañ koy dindi déet su fekkee ne promulgué nañ loi bi ba loolu jàll déjà kon on tend vers des élections yoo xam ne sax encore plus sélectif te ci ci sélective plutôt te suñu demee ci sélection boobu nag est-ce que jàppoo ne am na ñoo xam ne itam ñoo ngi ci biir carte gi jamono jii dañ leen bëgg a dañ leen bëgg a a dindi peut-être ci mel nga xam ne mu ngi dee ci fal nga ne moom amul ay élu hmm. ak maire yoo xamante ne danañ am nombre peut-être ñeneen ak xamante ne peut-être ku ci mel ni Anta Babacar nga xam ne am na manne financière bu baax hmm. boo xamante ne mën na ko permettre tey mu battre campagne wala mu ànd ak un candidat battre campagne ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi ci vingt candidats yi ku ci mel ni Serigne Boubou peut tamit ñoo ngi ci vingt candidats yoo xamante ne du ñu ne mën nañ gagner mais mën nañ permettre pour faire mal voilà pour faire itam projet de loi boobu nga xam ne yóbbu nañ ko assemblée ba voté ko modification peut-être am ci parrainage bi est-ce que du président ni mu waxee tamit dafa bëgg wax ñooñu ñëw leen dialogué sinon da leen nekk candidat waaw mooy chantage boobu ngay wax rek c'est-à-dire man bëgguma euh, commentaire sax ci éventualité wu report élection parce que moi je m'inscris dans le rétablissement du calendrier électoral fi mu dañ ko suspendre mais euh, processus bi c'est-à-dire dafa jaxase suñu consensus dafa rompre suñu consensus électoral problème parrainage yi yëpp amul woon parce que CEDEAO newoon na ko parrainage lu ci génn baaxul déjà il a il a refusé le problème était moom c'est c'est il est il est il est il da lu lu ko neex daal lay def gis nga code électoral bi bi ko fal moom boobu la changé loolu mooy problème bi toujours ma ko moo modifié ay L cinquante ak ay L vingt neuf ak dugal parrainage yooyu yëpp yooyu yooyu nag amul woon mm-hmm. parrainage ñu ngi ko ñu ngi ko réservé loon ñi nga xam ne c'était des personnalités indépendantes parce que loolu aussi et puis méttiwul woon c'était dix mille parrains mm-hmm. un réparti dans euh, donc loolu mën nañ ko comprendre mais les parti politiques nga xam ni dañu am statut constitution bi reconnaître leen comme devant concourir à au suffrage universel ñu daaw ñu leen laaj parrainage donc léegi comme on a euh, ay plus de trois cents partis politiques mm. mën nañu rationaliser affaire mais de la affaire faire une sélection parce que moom ci ci ci langage am sax <laughs> dafa ni dañu war a saytu logiciel bi def sélection bi il a utilisé le mot sélection xaw ma ndax loolu <laughs> noté nga ko déet comme <laughs> sélection la wax donc ça veut dire que loolu euh, il va éliminer quoi voilà voilà loolu mooy jubluwaayu euh, seen seen seen méthode boobu donc envisager daal ñu de ñu ñu ñu ubbi beneen beneen beneen processus mm. man bëgguma ci dugg mais bu fekkee ni loolu mooy mujj am il faut que le Pastef fas très attention parce que Macky nee na il faut ñu delloo si la confiance entre les acteurs parce que moom xam na ni y a une crise de confiance wóoluñu ko ah. parce que 2021 euh, bi ñu ko jekkoo il a accepté toutes les conditions ouais. waaw il a pris des engagements sur neuf xaw ma dix points yoo xam ni benn la ci respecté muy libération des détenus politiques li ci des yëpp après dafa defarwaat. di ñu mm-hmm. menacer. mais loolu ñun fàttewuñ ko Ousmane ko fàttewu ko Pastef fàttewu ko M2D fàttewu ko parce que la partie garante c'était Touba. Mm-hmm. sëñ Bass Porokhane la ñuy yónni woon mu def médiation boo xam ne bu bu réussir mm-hmm. mu désamorcer. loo xam ne. Ah, une bombe mais Macky dafa jonk noonu. toogatul woon ci fauteuil dafa jonk noonu ku jonkoon boo ko poussé nii rek mu toog sëriñ <laughs> euh, si téye suñu loxo mu nangu condition yëpp mais après dafa defaraat gendarmerie arme armé waat Moussa Fall. Mm-hmm. sous leen jël ay ñu kenn xamul dugal leen ci effectifu gendarmerie. ba mu amoon ay grincement de dents sax parce que gendarmerie ni am na ñoo xam ne du du leen du leen dugal ci effectivement ay anciens hmm. militaires lay jël ñu verse leen police y a un corps qui s'appelle PAV policier auxiliaire volontaire yoo xam ne amuñu sax numéro matricule jël ASP yi def leen ministère presque délégué ministère auprès du ministre de l'intérieur renforcer seen ay moyens hmm. xam nga ñooñu nga jox leen ay ay casque ay matériel de répression de anti émeute xam nga ñooñu dañuy bëgg prouver dañu bëgg a gagner sa leur place xam nga mu ngi mel ni stagiaire rek ndeysaan man mm-hmm. ma nekkee stagiaire xaw naa dee mm-hmm. man daaw ma wàcc dama daan yendu di liggéey ba ngoon mm-hmm. doog wàcc pour rek prouver ni man mën naa dara donc ñooñu aussi euh, noonu la ñuy kon mbaadu loolu mooy expliquer un peu dérive yi gis mais gisoo kuy tiré FLG naan nii FLG mooy fusil lance-grenade yu gàtt yooyu di ko tiré naan nii mais ni ku ragal lu muy def gis nañu image ci kooku amul formation un policier formé doo doo gis jiital jigéen di ko ngàdd di ko wéq ku am formation handicapé doo ñëw ku yor drapeau kese drapeau drapeau Sénégal c'est pas un <laughs> doo ñëw di ko violenté bay bay yàq matériel roulant chaise roulante am ñooñu ñooñu ñooñu ñan lañ ñooñu ban problème la ñu am ak population yi mm. mais quand on yaa que certainement des nervis yoo xam ni enrôlé nañ leen ci suñu suñu FDS yi mm. mais yenn comportement yi ça ça le laisse parce que da gis ay image yoo xam ne ay comportements yoo xam ni. une policiers yi sax dañ ci rus les vrais policiers dañ ci am gàcce mal à mais les vrais policiers ils sont avec l'ordre public. gis naa benn caméraman image bu benn caméraman bu bu ay policier jàpp euh, di ko jagat jagatee euh, nangu caméra mu ni moom day liggéey xam nga supérieur policier yi moom moo ni dañ ko bàyyi dañ ko bàyyi donc. Euh, ñoom daal police war nañu euh, seggaat foofu bu baax yooyu yëpp nag dans l' avenir euh, lu ñu am na ñoo xam ne dañu leen war a purger de nos de FDS. Hmm. Euh, ñu garder que des professionnels dans le maintien d'ordre parce que ñun quand même def suñu preuve partout en Afrique partout. ci ci dañu doon bàkkoone on a l'une des meilleures polices.